nii rek ngeen dëkkee. actuellement xanaa bu nekk extérieur daanaka depuis 2008 laa fi ñëw bon diggante 2008 ak tey maa ngi sant yàlla bu wér a wér yàlla mu may jàppale suturaal na ma bon ba nga xam ne lépp lu nit mën a defal yaayam rek teral ko tabaxal ko kër yóbbu ko maaka defal fan yoom ay teranga yàlla defal na ma ko bon. mais la may lépp mais dafa am loo xamante ni aussi tamit bon daf ma dal. motax tay ma bëgg def sam parce que bu ñëk ba dama doon wax waa xalaat dañu inventer seen histoire di ñëw di sonal seen bopp ma ne lii ku mu dalal rek mënoo ko expliquer moo tax man sama problème mooy que ne ba ma tollee ci takk jaba dañ ma wax dama ci village yi dama nangam affaire yi gis ngeen dëkk bi fee ko toj ma dem man tam gis sama benn village waaw en waaw gisuma sax dañ ma wax rafet na rek jekk na nangam nangam te seykat la ma dem dugg ci man ma dugg ci defar eh, ay papier indi ko fii nandal xale bi Boubacar daal man ndekete man xam nga xale bi saa bu lu ma ci gën a metti rek xam jigéen daal mooy loolu noonu jigéen Boubacar xale bi mook sa jabar ñoo bokk tur chaque balaa ma tëdd ci lal bi am na woy ba nga woyaloon waali waa ci concert waali Seck maam mooy sama paradise chaque jour balaa ma tëdd man foog ma jamal ko ko ree na xale bi am naa jabar dal naa Oba karna dai kete yo ma gana dai nyap. Kaya rin meti na ma bai tika na miya. Ma nda kete sa bo ma gin ni sa ma kete dam ka man tene ke ki wul dara. Oba kar. Nun sul ma ma ko nja pala indi ai papi yem. Udal ko pana skidik shong pur mu nyau jang gi si fi ni. Kam ga. Ke ki wul dara. Na ma ya la gi gi ada ma te ki Pas ka te ki ki lo ka ya la la ni. Ni bu ba kar ko kam ma ko dun di koy jox muy lek utal ko loas di fay chaque mois yow xam nga euro lu ma lay wax ni chaque mois di fay 465 euro yow war nga xam lol ñaata la ci CFA di ko ko fayal te amul ufi amul teer yu leer ak amul kaf lol lepp ma ko kay jël di en charge di ko ko fayal Boubacar ndekete sa bu ma liggey bi ndekete mok sama jabar ni ci biir appartement ba di lëkkaloo kar nek ci lu la neex ndekete man sama voisin bi tubaab la yàgg na maa topp nag bëgg ma bëgg ma ba sonn chaque jour mu doxaan ma mais xam nga rek man ay tubaab naka jekk mosuma leen bëgg daal man xet boobu neexuñu ma man dama nekk gumba boo xamante ne daf ma dab donc bi ku affaire cuuraay yu neex yooyu jigéenu Sénégal ma ne man jabaru Sénégal fii nii ñu rëccu naa ko billaay wallaay man daal sama voisine bi moo ma لو بوجي نسا جبر ماني كي داي فين دخ دخ من نب موتر طب نما وصل لول لا موتر مي إيبان لأنه زور متاعك من بين من بوبا كاركيس من يورك mana ko lek grawal tay ne ko chéri ok maa ngi dem mu ne papa tay moom ba mbaa doo kii naa guddee ñu ma ne ko non tey du ma guddee moom xam naa ay vingt heures côté yooyu noonu bon mun na am tey moom mooy loolu noonu Boubacar xoolal ma génn dem dugg ci kër voisin bi toog toog tëj foofu noonu toog ba toog ba ay dix heures ci demi kota yooyu noonu mu mana ma ne instant yi waa ji war na ñëw pointe ci waa ji dugg rek buñ toog mu leer ma ne ñi rek ma ñëw ubbi buntu bi ubbi buntu bi waaw ba ma ubbee biri biri bu étrange ma ñëw sama jabar kau tiit boo déggee nu muy wax ak man ma ne lii yaa quelque chose kon femme bi toorul mais comme du ma gis mun na ñëw génn waa ji mun na laa ko ci appartement ma bon j'ai essayé de jouer oh, le jeu utiliser sama xel tek buntu bi sama jabar ne ma lan ngay tëjee bunt bi la papa ça va waa lu xew lo faté lan ngi indi ni xam nga di xaw faté fàttali wala dal ma tek buntu bi ne ko ça va chérie man de bopp buy metti nangam nangam ma ñew tok ak mom ci bu wa mu ba ci buntu bunt bi ubbiwaat bunt ma ne ko chérie da bàyyi bunt bi mu tej tay da ko dégg ay kiit nangam kërërëm ma ñewa tej buntu bi xam nga ba ma buntu bi légui man xam naa numéro waa ji may seet waa ji far woo yàlla méthode bu ma utilisé man mu bu ma fa di weet waa ji gi dafa yaatu donc T3 la donc dama xam fan la nekk mais tëj naa porte principale bi léegi nag sama xel jox ma ma ne xaaral ma bippé waa ji comme yor naa numéro waaye gis nga ba ma bippé numéro bi boobu sax deful téléphone am mode silencieux affaire bi commencé di sonné te teelee leelee teelee leelee boobu kat lu jóg sama àdduna billaay wallaay wa taala xoolal ma toog sama àdduna tukki ma ne man lan laa war a def nii ma ne lii damay tëb quatrième étage daanu wala waa ji teem ma ne waa wala man dama leen di jël ñoom ñaar ut góol taal kër gi man lan laa def xola Boubacar daal ma jékki rek ma ko ma ne ko jël sa téléphone lépp lu fi xew xam naa ko ma ko yow nag mu ne ma ko mu ngeen kon di seen xam naa ko gis nga naan di màndi ma ko jëlal sa téléphone mu ngi nii taxaw yow tam jaru ngay nëbbatu ma ne ko nag doom jii ñu laay laaj rek man maay bàyyam te bu ma defee test bu ma leeree ne man maay bàyyam man say kayit ak lépp mun naa la ko may desal Europe mais xam nga lan moo ma gën a métti dañuy wax naan jigéenu vér yi sëyatuñu jigéen ñee ñooy sëy ñu dëkk ci vira gis nga xoola adduna bee tas xoola jigéen ñi waaye boo doon woon man jigéen woo jur jigéen ay sax ah man de bëgg naa sama yaay bu fi yaay yem ma traité jigéen mais jigéen bon dañuy wax góor bon na mais góor lu mu bon bon ay naan moo ëpp pexe jigéen jigéen weeni dafa sëy gis nga xoolal pexe jigéen moo garaaw yàlla nañu yàlla musal ci jigéen waaw yàlla nañu yàlla musal ci jigéen bu bon man affaire bi daal nii la demee man dama mujjee sax jonn ma ne man tubaab bi kon doon ma topp topp yu metti ku ma yëgoon takk bi du